الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر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 bisimilah barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax tey ñu ngi fii nag ci Touba ci HLM ñu koy wax euh, Daara bu Tarqiyyah ci xew-xewu diine boo xam ne nii xew-xewu sunna la di euh, takk wala réception wala mariage ci ñenn ñi ni ñu koy woowee tey ji nag di bisub gaawu ñaar fukki fan ak ñaar ci jumaadal ula ñenn ñi di ko xarakaati gàmm atum junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ci ati gàddaay gi waaye war a dis war a topp tolloog nag le 17 décembre ci sëy boo xam ne dox na ci diggante docteur bala mbaki Mbuub ak euh, soxna Mame sa Gueye ñu ngi fi nag ci biir ay mbokkam ak i juróom ak i jege ñaaleem ak xaritam aki i am di jàmmam fas yéene dugg ci seen biir jox leen micro ñu wax ay seere ak i témoignage ci jëmm ji nga xam ne moom lañ fa yéenee muur tey mu dem kër borom këram loolu rek lañ doon ubbee équipe Khidma 28 nag ànd ak euh, ensemble personnel bi yëpp ci ndigalu docteur Balla Mbacké bu ñëw fii ngir ànd ak soxna si mbégte mi euh, dund ak moom li nga xam ne mooy bànneex bi nga xam ne ñaanu yàlla mu dog mukk lu dul ne dañoo dem ba ay sët yu tedd ak i doom yu barkeel sosoo ci ci daraje yonent bi alayhi salaam barkeb ne mooy suñu yaakaar tey ak boo lëgee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi bisimilah barke borom Tuubaa soxna si ñu ngi lay nuyu di la siyaare ci micro Khidma 28 ñëw fi nag ci ndigalu docteur Balla Mbacké Mbuub mi nga xam ne tey moom la yàlla dogal mu jël sa doom ju baax ji di soxna Mame Bousso Gueye yow ngay juróom ñu jox la micro bi rek nga nuyoo wax sa tuur ak sa sant ñu soog a soobook ak yow ci li nga xam ne mooy waxtaan wi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum man la soxna Fadem Ka di soxna Cheikh Gueye Fatick di sant yàlla mi ñu fi di sant ko bu baax di sant sama sëriñ bu tedd bi nag di sant sama goro ba aji faañ mi ngi sant ñëpp di sant sama mbooloo bi waa kër di sant ñëpp di ñaanal maam jaari géem yi sëyam bi yenn ci dugg si bisimilahi rahmaani rahim toog si alhamdulilahi rabbil alamin sama xool nag daa neexul waaye may sant yàlla bu baax di sant waaye ma jox ñeneen dañ ci am kàddu moo tax soxna si xam naa laaj bi ñu lay laaj rek xam naa bañ a téye micro lu yàgg mooy nga am doom jur ko fi nga ko war a juree yar ko ci diine yar ko ci sunna yar ko ci taalibe ba nit bëgg ko nga fas yéene ko muur tay mu dem kër borom këram yan kàddu nga koy dénk te di ko seereel sa mbokk yu baax yi nga xam ne yéen ko seq. may sant yàlla bu baax di ko wax ni ma ko waxoon rek nee naa ko man bu ma juddoo ba léegi ma yàlla boole sa sa baay ba léeg damaa ñaan yàlla say sëy ya gën sa sëy ya sama laxsaay boobu ba léegi ma ko ndax ñoom ñi tax kon nag dama koy ñaanal géey fa nga du dem sey fay laa la wax bu fa sëy sey fa sey fa ndax ki wóor kër yëpp romb bu kër yëpp ñëw na yow laa bëgg wax dëgg yàlla góorgóorlu sey ba loolu laa lay dënk man de ba léegi maa ngi sama laxasaay bi tekkeegu ma sa baay lu mu bugg bu ko xoolee xool naa ko lu mu bañ rek bañ naa ko nawtal samay doom yéen ñaan yàlla njaboot gi yàlla barkee nañ bañ siyaari Seydina Muhammad do xëy ci liggéey sëñ Tuubaa bi nag xamuñu leen lu liggéey sëñ bi rek dëgg yàlla gi góorgóorlu rek lañ lay ñaan te dënk naa ko Balla bu baax nag dénk ko Marème dénk ko ñoom fa nekkee yëpp xamul dara xale dongo la nag na góor-góor rek waaw bu defee mu dindi bu def mu dindi loolu rek laa koy tey nekk nekk si jàmm xéewal. salaamaaleykum wa rahmatulah soxna si ñu ngi lay nuyu di la siyaare ci micro Khidma 28 bi nga xam ne docteur Balla Mbacké Mbuub moo ko moom. moom mi nga xam ne tey moo ñëw wut si seen doom labat ko ci farata ak sunna ngeen may ko ko ci farata ak sunna akuk taalibe ñu jox la micro bi nga nuyoo wax sa tur ak sa sant ak li nga doon ci ki nga xam ne mooy Mame Bousso Gueye mi nga xam ne dem kër borom këram. waaw euh, bisimilah rahmaani ak yonent bi sant Cheikh Al mi nga xam ne mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg waaw Mame sa nag sama doom bu baax la ndax bi ma ñëwee Touba dama fay fekk yaayam ñu dëkk dëkkiin bu rafet am jàmm am salaam léegi daanaka Mame Bousso bi man maay ndeyam may léppam ma ñëw leen fi nag fekk leen fi moog sëñ Cheikh Gueye mii sëñ Cheikh itam nekk góor gu baax góor gu laabir góor gu ndungoo uuf njabootam jooyuñu dara xiifuñu dara jaaxlewuñ ci lenn te it mu nekk suñu wéttal nag ndax ñun buñ ci ñëw xamuñu dara mënuñu dara ay jigéen rek lañu waaye danoo uuf jàpp nu jàppale nu ak njabootam ñu koy sant bu baax nag mam bu sa Gueye mii nag li ma koy sant mooy mu toog ci biir kër borom këram sëy fa sëy bu rafet dox tànk yi nga xam ni moom la yaayam dox ndax yaayam de ba mu toogee ba tey jógut te ku fi ñëw ci quartier Hizbut Tarqiyyah xam nga ak baaxam akuk laabiram ak ngoo dimbalint moom rek laay xamal yaayam jee nag maam bu samee nag maa ngi koy sant bu baax mu sëy sëy bu rafet bu gën ci sëy yi maa ngi ñaanal nag borom këram bi nga xam ne mooy Balla bàyyi buntu këram kër yu bari ñëw ba Hizbut Tarqiyyah gi tànn suñu doom ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm yàlla na ko yàlla may wërsëg bu mu ko yore yàlla na ko yàlla may njaboot goo xam ne dem mooy dem ba aw leen yóbbu leen màkka moom ñam fa fekk jubale na nag waa kër ga jubale na nag ki mbokki borom këram jubale na mbokki daaraam yëpp ci barke Serigne Touba. fii nag quartier jàmm ak salaam la bu fi jëlee bu fi jógee itam lii mu fi ba lii mu fi jëlee bu ko nekkee fee itam dina mën a nekk fu ne te it xele bu baax bu yaru bu dal bu bëgg ay nit bu am jàmm. yal na ko yàlla defal jàmm ci sëy bi def ci taw ak jàmm ak xéewal man nag man maa yaayam te dawuma ci dara. macha allah tabarkal. ok salaamaaleykum wa rahmatulah soxna si. ñu ngi lay nuyu di la siyaare ci micro Khidma 28 bi nga xam ne docteur Balla Mbacké Mboub moo ko moom. moom mi nga xam ne tey moo ñëw bëgg seen doom ju baax ji di soxna Mame Bousso Gueye yow na nga bokk ci ay wajur soxna Mame Bousso ñu jox la nga nuyoo bu ko defee wax sa tur ak sa sant ak lan nga doon ci Mame Bousso ñu soog a soobu ci waxtaan wi bisimilah. soxna Faat Jóob laa tudd ah Faat dem doon suñu dëkkandoo ju baax ah laabere ñu ñun ñëpp nag man bu soxna Ndey Ka waxee ba pare rek waruma cee teg dara ndax mooy sama kilifa mooy sama jawrin ah Faat dem daal maam jaara mi ñoo ngi koy ñaanal fu mu dem yal na ko yàlla jubaleeg ñami fekki yal na yàlla jubaleeg borom këram yal na ko yàlla jubaleeg ñami fekki mu def ni ndeyam nag ndeyam de ba mu toogee ba tey jógut góorlu rek bëgg ñëpp loolu rek lan koy ñaanal nag dama mënta wax waaye loolu rek laa gis sëñ Seex borom këram ñu koy ñaanal yàlla suñ boroom defal ko jàmm ak xéewal ak wér ci barke Sëriñ ñu ñun de ban fi ñëwee ba nag di ñu dara suñ dëkkandoo yu baax lañu ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp kon noonu ñu moonu noonu nu mel fu mu dem rek bu fa demee dana fa mën a toog dana fa mën a góorgóorlu dana fa mën a sëy loolu rek ni day mel rek noonu lay mel waaw jërëjëf. soxna si ñu ngi lay nuyu di la siyaare ci micro Khidma 28 nga xam ne docteur Balla Mbacké Mboum moo ko moom moom mi nga xam ne moo ñëw di bëgg seen doom léegi nag ñu bëggoon nga wax tur bi ak sant bi ak lan nga doon ci Mame Bousso ñu soog a dugg ci waxtaan wi. maam salaamaaleykum wa rahmatulah ñoo sant yàlla di julli si Yonent bi sant Serigne Touba Mame Bousso bokk ndey ak baay waaw. di ko ñaanal sëy bi barkeel yàlla jubale ko borom këram bu mel leen yaaye moom fa mu nekk dana fa toog ndax yaayam bi mu ñëwee ba léegi mos a jóg mos a randatu dañ koy ñaanal yàlla sëy bi rek barkeel kàttani kàttanu yàlla màgget gi laa tudd waaw ñoo bokk ndey ak baay bàjjanam ak xam laa xam naa laaj bi ñuy laaj rek mooy jigéen ju ñuy muur ñaare muy dem kër borom këram dangay dégg nit ñi naan danga ngaa fas yéene defante ji wala nangam xeetu baat yooyu ngeen war ko muur mu war a fekk ji ay nawleem léegi lan ngeen koy yabee ci jikko yu rafet yi nga xam ne mag ñu baax ñi daanañ ko dunde naka jekk bu ñu leen daan muur ñuy dem kër xanaa mu góorgóorlu topp si ndigalu borom këram lu mu ko sant mu def lu mu ko tere mu bàyyee topp sa waa kër ga bam fa ñam fa fekk nekk si lu baax solo lépp luy bon si loolu la ñuy dund moom lañ koy digal waaw ñaan yàlla jubale ko borom këram kàttanu yàlla. yan kàddu nag ngeen di dénk borom këram moom sëñ Balla bi nga xam ne ko jël seen doom fas yéene koo koo uuf yoo ko yor bu rafet del Balla moom suñu xel dal na si moom ndax ñoo bokkul lépp di ñaan yàlla daal si bi barke def si njaboot bu barkeel kàttanu yàlla loolu rek la ñuy ñaan daal ko jërëjëf jàmm ak xéewal bisimilah salaamaaleykum soxna si ñu ngi lay nuyu di la di la ci bis bu tedd bi di la jox micro bi nga nuyoo sa tur sant ñu soog a dugg ci laaj yi bisimilah. juróom-ñaari sëñ Fallou borom di nekk sam borom kasira jàmm bi ñu ngi lay ziar di leen di nuyu di kontaan ci yéen te ji leen wax ne leen. am ngeen soxna si yiiw mu ñu tudde ko Mame Diarra liñ koy denku ñun yaayam lañu dañoo bëgg mu sëy ba jeex tàkk da te bum xool bu gis na jëkkëram doon allah jéem doon léppam moom mu doon jaam doon sangam lu mu ko woo mu wuyu ko ci bu am xarit bu mu àndandoo jëkkëram la doon xaritam loolu lañ ko dénku. yow ci bàjjeni maam Bousso yi nga bokk wala ci tant yi wala. ca tante yàlla maa jur aram seen dëkk waaw dëkk Fatick. yaayam maa moom ñoo bokk ndey. waaw man daal li ma koy ñaanal na doon soxna rek. waaw. bañ a waaw loolu laa koy ñaanal. <laughs> léegi ki ngeen xam ne moom ngeen di jox seen seen doom nag muy docteur Balla Mbacké Mbuum lan ngeen koy nax. xanaa di ko ne ko mujj di ko naxal rek. waaw nekk ak moom rek mu def ak moom comme bu roog soow rek. waaw xale bu tuuti la waaw buñ bësee rek meew génn. Mm-hmm. waaw te mu xam ne ña mu fekki doonatuñu sax ay guuj ay yaay lañu di ko tette comme moom rek. mu sa ñu sës ak moom rëkk rek loolu rek dañuy ñaan ci doole yi maam Fallou. alhamdulilah. salaamaaleykum soxna si ñu ngi lay nuyu di la siyaare ci micro Khidma 28 di la bàyyi nga nuyoo wax sa tur ak sa sant ñu soog a dugg ci laaj yi. waaleykum salaam wa rahmatulah nuyu naa leen ziar naa leen sant naa leen gërëm naa leen waa Khidma 28 man maa ngi tudd Adam sant fay Fat Dem mii soxna Fat Dem mii di yaayi maam Jaara Bousso mii moom ak sama borom kër ñoo bokk ndey ak baay waaye dafa mel ni man maak moom ñoo bokk ndey ak baay wallaahi al azim man tiijaan laa waaye barki sëriñ Tuubaa yaayam benn doom bu góor jigéen boobu rek la am man yaayam moo ma yar ba ma amee deux ans ba léegi nii eh, xale bii su melee ni yaayam wallaahi al azim fu mu dem dina fa toog yaayam baax na muñ na am na xel elle est exceptionnelle elle est exceptionnelle yaayam mag la rakk la soxna la baayam sama frère la mun naa kitaabul ne baayam sama frère la parce que sœur la ma jàppee xale bi nag li may bëgg ngeen xam ko mooy wallahi al azim li ma ko xamal mooy xale bu baax la xale bu dal la xale bu am sutura la xale bu am mag bu xam mag la xam na yaayam xàmmee na ay magam xàmmee na moroomam wallaahi al azim loolu laa gis ci moom te bi muy judd fi la ma fekk ba nii ñu koy muur tey muy sëy nii kon li ma koy ñaanal mooy bu demee na mel ni lii murit yi naan Baay Faal la ko murit bu noonu la ñuy wax waaw waaw na na dem seeyi li nit ñi di wax hmm. bu demee na seeyi bu mu fa bu mu fa def bu mu sëyi bu defee loolu dina def li li lu ndeyam gërëm lu yaayam gërëm te xam naa ne loolu la yàlla bëgg yal na ko fa yàlla saxal barke alxuraan karim li ma bëgg wax yëpp mënuma ko wax parce que li ñu naan li duuf ci nag bi xejul si kii bi xejul si si si cin li mooy loolu yal na ko fa yàlla saxal yal na ko barke baayam ak liggéeyu ndeyam wàllu ci barke alxuraan barki Serigne Touba Mbacke boroom kër gi tamit dénk nañ ko ko dénk nañ ko ko baayam la frère am la eh, borom këram la kon nag na ko def comme nu nu boroom kër war a def soxna moom bu demee ñam fa fekk na topp ci ñoom luñ ko wax mu def luñ ko tere mu bàyyi parce que yaayam ñu noonu la mel man mii bokk ak yaayam ndey ak baay loolu laa mën a wax noonu laay defanteeg moom tantam bee nga xamante ne moo yaayam ñoo bokk ëtt bi wallahi al azim laa gis ñu defante kon bu demee na def noonu ci barke alxuraan karim wax ji li ma ci séduire mooy taalibe Cheikh xam nga moom day day day day day dégg daaj maanaam ni nga defee nii am na solo maam Bousso moom xam naa dina am jafe-jafe xam naa ne ay bàjjanam ak moom dañoo bokk ci ñaari wàll yëpp te lépp mi ngi bàyyi ci maam Maharam waa diggante sëñ Tuubaa ak Seydi Hadji Malick moom defe naa ñaari jëmm kenn lañu moo tax boo ñëwee bokk ci taalibe Cheikh ba pare wax lii tey bàjjanam moom moom daanaka am na yab boo xam ne daal moom moom il moom elle a du pain sur la planche daal. n'a pas droit à l'erreur. n'a pas droit à bu demee na def ni kuy sëy di def kuy seeyi na yi rek ci barke alxuraan dina fa jur maam jaara buso baa mu jur fa maam faa wàddu wele barke alxuraan je vous remercie. salaamaaleykum wa soxna si ñu ngi lay nuyu di la siyaare ci la ndokkeel ci bis bu tedd bi nga xam ne yéen ñëpp yéen ko bokk yéen ñi bokk ak maam buso ñu jox la nga nuyoo wax sa tur ak sa sant ñu soog a soog yow ci waxtaan wi incha allah. salaamaaleykum wa rahmatulah ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp naaw bi ñu sant yàlla dund ci Mouhamed dañuy sant Serigne Cheikh mooy papay soxna Jaara man maay soxna Anta Samb maay ñaareelam ma ñëw nag fekk fi yaayam soxna Fadda ma ñëw mu uuf ma boot ma macha allah këpp la bala ma sant kenn ma sante Serigne Cheikh damay ñaanal soxna Fadem doomam ji sëyam bi nag bokk ci sëyee dina barkeel yàlla saxal ko fa barke turandoom ñu sant nag di wane suñu contentement wax sax jafe na waane nag sant nañu bu baax ñuy ñaan sëy bi yàlla def ci barke def ci njaboot ndax Fadem man dama fi ñëw fekk si ko fi ma nekk di xale ma ñëw nag macha allah. mu ñemeloo ma ba ma ñeme yaatal ma ba ma yaatu uuf ma ba ma yaatu ci côté bépp bëgg ma bëgg sama njaboot kon mënuma ko fay maa ngi ñaanal soxna jaar mii moom tam bu demee magam yam fa fekk yal nañ ko uuf soxna jaar xale la amul benn problème xale bu baax la xale bu yaru xale bu dal man di def ma bëgg tànda rek la may wax daw rek daanu sama kaw yal na ko fa yàlla saxal nag ci barke baayam Serigne Cheikh moom nga xam ne njabootam rek la bëgg yal na ko fa yàlla saxal maa ngi koy ñaan barke alxuraan damaa dama ne wóolu xam i koro te yàlla def yàlla dogal na ni sama xol bi yéene naa ci wax lu rafet ndax nag Fadem ka war na ma ko kontaan naa ci sëriñ Cheikh ndax it wax dëgg yàlla Serigne boo xam ne la loo tëlee wax wax boo yoree micro boo jeexoo sax da nga jéem a wax ci moom kon maa ngi bu baax jë jërëjëf waaw. waaw si ñu ngi lay nuyu di la siyaare di la jox micro bi ci xitma 28 nga nuyoo ñu doog dugg ak yow nag ci laaj yi bisimilah. bisimilah barke Sëriñ Tuuba ñoo ngi leen di ñaanal jàmm salaam di ñaanal sëñ Muntaxa Basiir mu yàgg fi lool te wér di ñaanal borom sëy bi yal na ko ko yàlla feelu ci barkeeb turandoom soxna jaar sa poroxaan yaayam nag moom lu baax rek lan ci xam ci moom ndax dañoo dëkk ak moom ci koñ bi xam lu baax ci moom yàgg ak moom man sëñ Thierno Diouf laa mbaay mooy sama baay waaye ba ma ñëwee ci koñ beeg léegi ba diggam na nga ni nii xaw ma ci dara ci ci moom ci loo xam ne ci lu dul lu baax nu ngoo jaamu yàlla nu ngoo toog ci këram gi amul xarit amul àndandoo soxna jaaram yi tamit ñoo koy ñaanal comme jëm yal na ko fa Serigne Touba teeru ak barkeb turandoom barke sëñ Touba sant nañ ko bu baax xale bu yarul la xale bu baax ñoo ngi koy dénk sëñ boobu ñu ko jox daal. docteur Balla Mbacke moom ñoo ngi ko koy dénk yal na ko Serigne Touba booleeg moom ak njaboot gu bari te barkeel barke sëñ Touba. ak ay salaamaaleykum wa rahmatulah soxna si ñu ngi lay nuyu di la siyaare ci micro Khidma 28 di la jox nga nuyoo wax sa tur ak sa sant ak lan nga doon ci Mame Bousso. maa ngi leen di fay di leen sant maag yaayam ay doomi ndey lañ waaye nag maam bu so xale bu baax xale bu bëgg mbokk man yaay tantaam ji toog fonk na ma bëgg na ma ñu koy ñaanal nag géey njooro ci sëy bi muy dem yal na ko fa yàlla taaj santuñu ko nag mu sëy dañ ko ne mu dem seeyi yal na yàlla def na jàmm barke sëñ Fallou loolu rek lañ koy ñaanal géey njooro kay borom këram nag waxal ñaari kàddu ci moom nag docteur docteur kay fi ne faaw mu jël rendez-vous moom comme mooy joxalaat ay rendez day jël rendez mbuub sama goro mbuub ñu ngi lay dënk suñu caat bi di la ne caat mii bu dénk nañ la ko bootal ñu ko yiiral ñu ko ci barke sëñ Fallou. bokk ku yiw ku tabe ma bu ma xam naa ni bu ma waxee si moom wax ji bu bëggee bari sax waaw sama xol bi dina tooy ma jooy macha allah kenn du moom daal macha allah. Mboso hmm. di xale ngeen joxe ko mu war a dem fekk ji ay nawlem lan ngeen koy dénk en tant que ay xaritam en tant ay mbokkam. waaw xanaa di koy wax na rek bu demee na muñ te mu xam ne moom sëy neexeewul fenn te bu demee ñi muy fekk na leen jàpp comme yaay bu mu leen sax jéem a def mag wala dara topp seen ginnaaw comme niñ koy waxee rab rakk topp mag rek na leen topp comme ay magam lañ waaw sëñ bi moom mm, alaaj bi comme fiir daw si daw si la koy woowee comme Firdawsi waa Firdawsi nag na ko muñal te xam ne xale bu ndaw la yéel yee gudd rek waaye moom bébé na koy chuchoté comme ni ñuy def xale rek waaw. salaamaaleykum wa rahmatulah soxna si ñu ngi lay nuyu di la siyaare di la ndokkeel ci bis bi di la wax nga nuyoo wax sa tur ak sa sant ak lan nga doon ci Mame Bousso. waaleykum salaam wa rahmatulah maa ngi leen di delloo ziar di am mbégte ci seen teewaay man Mame Diarra Mbaye laa tudd man Mame Diarra gi ñoo fi yarandoo depuis xale ba ni muy màggee ñoo ànd di ko ñaanal nag sëyam bi. yàlla na doon sëy gën ci sëy yi sëy yi ñu takkee ci aras tegu ci ñaanal njaboot gu barkeel. salaamaaleykum wa rahmatulah ko Koumba ñu ngi lay nuyu di la siyaare ngay mag ci Mame Bousso tey di di bis bu sedd xol di bis boo xam ne bisu ngëneel la ci famille bi yëpp ñu bëgg nga nuyoo bu ko defee ñu soog a ak yow nag ci waxtaan wi. maa ngi nuyu bu baax di ziar di doon la ziar bu baax di ñaanal sama rak bi sëyam bii nii yal doon sëy yàlla ci aras. njaboot bu barkeel ci barke Seydina Mohamed ku baax la ku yaatu la ku yaru la bu ko sëñ Balla téye rek dina sëy sëy bu rafet ndax ñu sëy rek lañ xam moom mi daa nekkoon ca Fatick di liggéey moo ko woowee soxna jaara man de tey dama yokk laa bëgg mu yónnee ma xaas bu bari barke Serigne Saliou Mbacke mu nekk ku baax nag nii mu nii noonu la mel barke Serigne Saliou Mbacke te suñu yi ñu yar sëy rek la ñuy jàngal kon nag bu ko jàppalee dina toog te dina lu ma leen di ñaanal sama rakk yëpp kon gudd waan ak wér ci barke Seydina Mohamed kontaan naa ci ñoom. yan kàddu ngay dëkk docteur docteur de fi mu ne nii moom jëlatul rendez vous rendez vous yëpp la bouclé fi mu ne bu may jógee cabinet ba daal ku ñëw a la fajuma tey. Mm, ñu ngi koy dénk daal suñu rakk ji mu téyal ñu ko sàmmal ñu ko aaral ñu ko yiiral ñu ko ci barke Seydina Mohamed ñun loolu rek lañ koy ñaanal mu defal ñu ko. Eh, eh. xanaa xale lañ ko jox xale bu ndaw nañu ko téyeel daal. kon daal docteur mi doon joxe rendez-vous daal tey am na rendez-vous moom. <laughs> tabarkalla. salaamaaleykum wa rahmatulah soxna si ñu ngi lay nuyu di la siyaare ci micro Khidma 28 ñu bàyyi la nga nuyoo wax tur bi ak sant bi ak lan nga doon ci maam Bousso. man maam Fatou Gueye laa tudd maam maam Diarra ñoo bokk baay suñ papa yi ñoo bokk ndey ak baay waaw. tey di bu tedd ci maam ngeen jël seen rakk fas yéene koo maye mu dem kër. yan kàddu ngay tàbbal ci bis bu tedd bi di bisum mbégte. xanaa rek kontaan rek ci Mame jaar kontaan ci bis bi di ko digal rek bu demee kër ga muy sëy ñam fay fekk mu def leen yaay ñii mag topp seen digal bu amee lu ko jaaxal mu laaj leen lu ko naqari mu laaj leen mu jàpp leen bu ko jëkkëram waxee sax mu dem laaj ay magam yam fa fekk kala man Fatick ba may sëy ñoo den doon place ni mais bu ñëwee daf may xool naan ma defal lii ak defal lii daf ma yërëm bëgg ma bëggul dara lu ma naqari moo tax dama koo dégg rek ne ko maa ngi ñëw ñëw te damaa fas gumbe ko ba ceet gi tas toog ak moom ba ci kanam waaw sama rakk ju baax la. yan kàddu ngay dénk borom këram. borom këram maa ngi koy ñaan mu jàppale ko te xam ne maam jaar xale la xamul dara na ko jàppale waaw def ko kom rakk bu mbokkal la yeeg waaye bu ko jàppalee rek dina dem ndax jaar xale bu ndaw la xamul dara bu jàppale mu dem. waaw di ko ñaanal mu yërëm ko rek waaw. tabarkàlla soxna si. salaamaaleykum wa rahmatulah soxna si ñu ngi lay nuyu di la siyaare ci micro Khidma 28. tey jii bis bu tàdd ci yéen ngeen di joxe seen mbokk seen xarit soxna Mame Bousso Gueye mu war a dem kër ñu bàyyi la nga nuyoo wax sa tur ak sa sant ak lan nga doon ci Mame Diarra. aouzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant Serigne Touba bu baax di sant suñu waaju di nuyu ñëpp. di leen ziar di leen wax teew gi ngeen fi teew am na solo lool macha allah ñu ngi sant bu baax di wax dañoo am kontaan nag lool sax wax dëgg yàlla ndax ñun kër Fadem lañ nekk Fadem sama njëkke la muy yaayu maam jaara macha allah mu téye ñu téye bu rafet nag dëgg yàlla amul benn problème di ku baax nag moom yaayam waaye nag maam jaara day kenn ci ñun dëgg yàlla nit ku baax lool macha allah oyof. man ak moom ay morom lañ yàlla xam na ko maa ko mag mais morom laa ko def bu ñëwee ci kër gi damay kaf ak moom di ree dañuy mel na nay morom billaay lu mu yëkkati nag may ma nekk nit ku baax yàlla xam nga ku oyof daal te wax ji dafa teey bu weexee yow wax ji dafa teey mu nga xam ne kii moom ku ñaar la te ñaar yëpp la boole jëf ji rafet na wax ji dal na teey na dëgg yàlla teey nañ torop macha allah. te lu lu day dafa xalaat bu rafet nag la yor dëgg yàlla boo toogee ak moom di waxtaan ak moom dangay xam ne kii xalaat bu rafet la yor. yan kàddu yan tàgg kàddu ngay dénk borom këram. waaw borom këram it ñu ngi koy wax ne ko jox nañ ko ko baax jox nañ ko ko yaru jox nañ ko koo xam ne am nañ yaakaar nag ci moom yàlla rek mooy dogal yàlla bu yaakaar tas. borom këram it ñu ngi koy sant wax dëgg yàlla moom tamit bi affaire yi ba nëgën ni kontaan nañ wax dëgg yàlla def yëpp gis nañ ko te sëy bi yàlla na barkeel yal yàlla may njaboot barke ci bak sëñ Fall daal la ñaan. waa kay kon salaamaaleykum soxna Fatou ñu ngi lay nuyu di la siyaare yow euh, lan nga bokk ak Mame Bousso. Ndeye ngeen bokk léegi Mame Bousso tey bis bi dañ koy maye mu dem sëy yan kàddu nga koy nga koy béy loo bëgg bu demee mu def ko. man man de.